après plusieurs semaines d'attente suspense bi jeex na tey euh, le président Sall la coalition Benno Bokk Yaakaar xam nañu désormais kan mooy nekk seen candidat euh, pour présidentielle 2024 Amadou Ba la tudd euh, le choix loo ciy wax lu ma si wax je pense que pour être constant et et, cohérent euh, je crois pour revenir ci décision bi ci processus bi Euh, président Macky Sall après sa décision historique euh, bi nga xam ni nii dafa yëkkati Sénégal euh, yëkkati démocratie Sénégal mais dooyaam taxawaayam esprit républicain bi nga xamee ni renoncé na ci troisième candidature mu nekk moment bu important président laajoon na carte blanche ñun ñëpp ñu joxoon ko carte blanche euh, tous les militants et responsables de l'APR mais aussi noonu la ko parti allié yëpp defee nit nag boo ko joxee sa kàddu euh, ne wóolu naa la tànnal et donc boobu amul dara lu war kenn koo xam ne nii kàddu googu tënk na la euh, lu dul xaar ba nga xam ne nii Euh, moom jël na dogal bi. Euh, président Macky Sall nekk nit koo xam ne nii nitu déglu la nitu euh, concertation la nitu consensus la ku am humilité ci li muy def yëpp. ci loolu responsabilité boobu ñu ko jox mu war a engager l'avenir du pays au de li nga xam ne nii liggéey na ko ci réew mi fukki at ak ñaari mu ubbi ko jox candidat. yi nga xam ne déclaré wu nañ yëpp jox leen seen dignité mooy recevoir leen déglu leen mais bu mu leen dégloo ba pare jàpp naa ne tey ci histoire u Sénégal euh, ak ci acteurs yëpp président Macky Sall moo fi nekk koo xam ne nii mu ngi en activité comme président de la République moom moo toog ci fauteuil bi et je pense que euh, ci tànneef bi xam na critères yi nga xam ne nii moom moo war euh, pour nekk président de la République mu jàpp ni ci coalition bi ñu nekk ak ñi nga xam ne déclaration ñëpp euh, suñu camarade Amadou Ba mën na def face ak défi ak enjeu yi nga xam ne ni moom la Sénégal wala jàkkoonteel ci at yi di ñëw donc ñu mu tànn Amadou Ba euh, ci processus inclusif de mm-hmm. concertation waxtaan parce que loolu dafa am solo euh, loolu nag bu ko tànnee Euh, comme man damay wax ni procédure waxoon naa ko fii ne jox naa carte blanche parce que à partir du moment où nga carte blanche amul schéma yoo war a nekk wala manœuvre da ngay toog nga déglu ko. kilifa non aw ma woon parce que nee naa jox naa jàpp naa ni. Mhm. président Macky wóolu naa ko ci ànd bi ñu ànd wóolu naa xelaatam vision wóolu naa xelam ak xalaatam te gëm naa. bëggam réew mi te mënul am tànneef boo xam ne nii nekkul njëriñu réew mi loolu à partir du moment où j'ai cette confiance la mm-hmm. et j'avais une confiance absolue mm-hmm. donc li ñu waroon ñun nit ki boo ko wóoloo mooy nga toog xaar et je suis heureux par contre mm-hmm. je suis très heureux que le choix final soit porté sur euh, Amadou parce que euh, effectivement nit ku ma xam la euh, te jàpp naa ne ci ñi fi nekkoon Euh, di jongante en tout cas jàpp naa ni mooy ki nga xam ne nii ci parcours am ci expérience am ci vécu ak ci jikko de de quelqu'un de pas clivant euh, ci jikkoom de rassemblement ak euh, connaissance des arcanes de l'État connaissance des politiques publiques mises en œuvre par le président Macky Sall depuis 2014 ci PSE Euh, ak ci li nga xam ne nii moom la nekk fi nga xam ne nii mooy ministre de l'économie et des finances am une vision transversale mhm. de l'ensemble des politiques publiques jàpp naa ni ak jéego yi nga xam ne nii politique publique yi def nañ ko euh, ci Sénégal ci fukki at yi si Macky Sall dans tous les domaines et dans tous les secteurs et que progrès yooyu ñu war ko continuer ëllëg jàpp naa ni c'était le candidat le mieux outillé euh, en tout cas pour porter le flambeau. man loolu est-ce que maintenant, il y avait que ça. li ma bëgg wax mooy qu'est-ce qui a été déterminant en dehors de Sousa parce que li nga wax nii yëpp ah. mi ngi woon ci yeneen candidats yi. mi ngi woon ci Aly Ngouille Ndiaye mi ngi woon ci Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi woon ci Boun Abdallah Dionne ku ci nekk servir nga état ci niveau boo xam ne bu am solo la. oui mais xam nga euh, je pense que parcours yi bokkul euh, taxawaay yi bokkul et aussi expérience yi bokkul. Mm-hmm. Euh, xam nga tànn sélection boo ne choix rek mooy éliminer nga. c'est euh, xam nga li ñuy wax du affaire nit on est dans un moment extrêmement important affaire réew la ñuy wax affaire avenir réew la ñuy wax affaire 17 million de sénégalais la ñuy wax affaire projet de transformation de continuation du processus de transformation de notre pays la ñuy wax. Mm-hmm. et jàpp naa ni. Euh, le mieux outillé man personnellement parce que je connais Amadou Ba euh, je crois que euh, c'est quelqu'un qui est depuis trente ans dans si arkaanu état yi état euh, ci ñi ci nekk ñëpp ñi ngay ñi ngi ma tuddal ñëpp je pense que en terme d'expérience et en terme d'exercice d'exercice des responsabilités publiques doo ko si tëkkale kenn je pense que c'est quelqu'un qui a après sa carrière qui a été quand même depuis 2006 directeur général des impôts et domaines mm-hmm. d'accord euh, pendant le régime de Abdoulaye Wade c'est quelqu'un pendant six ans qui a été sept ans même directeur général des impôts et domaines fu nga xam ne nii tu as une vue aussi transversale de toute l'économie je pense que en termes d'antériorité et d'expérience ak xam réew mi xam nit ñi xam problème réew mi xam économie réew mi socialu réew mi li mu war def jàpp na man personnellement jàpp na personnellement que euh, c'était le meilleur choix. mais je pense que sénégalais yëpp. mais mais mais. mais li yëpp boo ko xamee président Sall xam ko. waaw euh, lan moo waral xaar bu yàgg bi alors. qu'est-ce qu'il explique mais mooy. est-ce que les autres aussi xamee woon nañ ko noonu. non xam nga politique acteurs bu nekk buy dugg ci politique. ci normalement tu dois avoir tous les acteurs politiques le jeu politique. Mm les acteurs et les acteurs politiques doivent avoir des ambitions et l'ambition en politique n'est pas un crime c'est quelque chose de d'accord tous les acteurs à partir du moment où le président se retire il doit accepter et qu'il décide de se retirer le président doit accepter que des ambitions puissent naître et c'est et, et c'est exactement ce qui est arrivé président bu mu retiré woo des ambitions dañu dañu affirmé wu ay mhm. ambition juddu maintenant boo ay ambition juddu yow ngay kilifa da nga nangu et je pense que président daf ko nangu ni ay ambition juddu na euh, ci ñu bari mais mais kon ne perde pas de vue l'essentiel qu'on ne perde pas de vue l'enjeu même bu dee choix bi leeroon na ci président mm-hmm. et que moom war na candidat bu nekk mu waxtaan ak moom euh, waxtaan ak responsable bi waxtaan ak coalition bi waxtaan pour que euh, ñëpp ñu mun a ànd au final ci choix bi parce que doo jóg rek affaire bi